jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo talaata bu jot ci waxtu bi ci seen euh, émission euh, bi nga xam ne mooy Roofo mbokk yi asalaamaaleykum euh, tey di talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre 2013 ñëw nag ci li nga xam ne mooy seen magazine Roofo mbokk yi comme ni ñu leen ko daan defalee talaata jot bu waxtu bi ziarante ñaanalante yàlla yàlla dolli sutura dolli xewal ci réew mi. Euh, dolli ñu jàmm dolli barke ci réew mi teyit yàlla sutural ñu ba li nga xam ne euh, mooy Sénégal fi ñu ko bëgg a jëmee yàlla kattanal ñu ba ñu yegg ca ci kër barkatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi ak yi ko wër euh, dolli jàmm ci li nga xam ne nag mooy li nga xam ne moom la ñu seq mooy diwaani làmb mbokk yi émission tey bi nag di émission bu spéciale boo xam ne bii ah maa ko sàkk woon toog ak suma ñaari kilifa. su ma nee suma ñaari kilifa mooy dañu di ñoo xam ne ci man tey euh, seen jaar-jaar ci làmb day loo xam ne dama nekk xale di ko topp ba ñu toll nii ñu toll tey man it ma toll nii ma tollu ñu nekk ca nag séq ko muy ñaar ñoo xam ne laata ma leen di jox ñu nuyoo di fàttali ne euh, milieu làmb li nga xam ne rek euh, borom bi subhaanahu wa taala ci ay dogalam Euh, di jaal alaaji Ibrahima Ndiaye waajuram bu jigéen boobu nga xam ne moo génn àdduna euh, di ko jaal mondu làmb euh, ndax Ibrahima man kilifa la ci man ndax Ibrahima bi ma koy xam ak léegi war na mat 40 ans kon je pense que bi may gën a nekk xale laa miinoon Ibrahima ci làmb kon Ibrahima dafa bokk ci li nga xam ne mooy sumay kilifa te nekk ci làmb kon waajuram woowu di sunu maam ah ñu ngi ko koy jaal di ko ko siyaar bu baax a baax a baax a baax kon foofu lañ ko doon tijjee rek euh, euh, doomi duubalees xam naa ne loolu damay bàyyi ngeen ñëw ci euh, ndax milieu làmb li ñu naan njaboot gi yëpp benn la moo tax bu dara xewee ñëpp daja ca rek mu sedd lool woyof lool kon tey émission bi nga xam ne ci la ñu jëm pour spécial la ma bëgg nag ah mag suma ñaari gaañ yi balaa ma leen di présenté Euh, xam naa sax gars yi xaw nañoo xam fi ma jëm waaye di fàttali ne euh, première journée bi biñ ci génnee dugg ci deuxième journée Malal Ndiaye moo ubbi première journée bi victoire ci Paul Maurice euh, deuxième journée bi tamit muy journée des espoirs ni ko sëñ Modou ñaa di defee nee naa ko la ñu doon wax mbappat moom nga bëccëgal léegi moom nga bëccëgal parce que léegi guddi gi neexatul organiser mbappat kon sëñ Modou moom la soppar ñi bëccëgal ko pour xale yi mën a feeñ mooy yenn combat yi nga xam ne comme journée des espoirs boobu feeñal xale la Ziza gis nga euh, bëri bi mu bëri ak Diadji Or euh, euh, moom it ci deuxième journée bi daañu si dellu si ak Cheikh Thierno Ndiaye ak jàngatam kon mbokk yi ma dalal nag ñi nga xam ne tey ñoom laa fi invité ndax dañu jëm ci bés bés boo xam ne nag bésu làmb yëpp la bésu promoteur yëpp la bésu mbër yëpp la bésu reporter yëpp la bésu képp koo xam ne mi ngi gravité autour de la lutte sa bés la ndax ñii toog tey di Alaaji Ipongaar yi Euh, Alaaji Po maa euh, lay maa ngi lay maa lay maa lay nuyu di la dalal. Alaaji Ngagne fay naa la. Mhm. Euh, di ci jaar nag di nuyu sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp mhm. ñu ne fii ci biir biir réew mi ñu ne bit bitim réew fu nit nekk rek rawatina sénégalais yal na yàlla dolli jàmm yokk say xéewal may la wér. Mhm. jërëjëf euh, kooku mooy euh, alaaji Hippo ngaari ngeen miin ko lool ànd ak ki nga xam ne nag di doomu ndeyam alaaji yi euh, Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi alaaji Ibou maa ngi lay nuyu. alaaji Ngañ ñu ngi lay fay di leen nuyu di nuyu waa kër gi rawatina borom kër gi di ñaan réew mi yal na fi yàlla sotti jàmm. amiin ndax jàmm rek moo indi lii. Mm-hmm. te ku fàtte la la fal boo dee folliku du bett kenn mm-hmm. moo tax buñ jógee ba ci biir mm-hmm. dinaa am lu baree baree baree bari loo xam ne dinañ ko waxtaane ci biir làmb mm-hmm. loo xam ne jëf nga ko yow sa jëmmi bopp ci biir làmb que ça muy ci mbër wala muy ci manager mbaa ci promoteur ba ci ñun communicateur traditionnel yi foofu rek laay nuyoo di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jërëjëf def naa yaa ngi doon fàttali doomi Double Less Alaaji Po waaw euh, xam nga rek. waaw micro. Mhm. xel day fattu. Mhm. moo tax euh, ma fattar ni ko. Mhm. yaayu Birayim Ndiaye. xam nga boo juree doom ba mu tekki rek ngañ deewatoo. deewatoo wallaay deewatoo wallaay moom ñoo defandoo xale. ak Mbiite Ndiaye. am na yu bari yoo xam ne sax duñ ko nettalee ndax ay mag lañu léegi. mais teral na yaayam tabaxal ko dëkkoo yaayam noonu la doom ji baax di def àdduna nag kenn dëkku fi li la fi indi moo lay yóbbuwaat rek waaye li bon ci àdduna nga deewaale doom joo xam ne jikko yow mu mel neexul la ci sa xol ba nga dee bu boobaa yow mën yàlla mën na laa bañ a yërëm waaye euh, bu fekkee da nga am doom mu teral la nga deewaale loolu yàlla mën na laa dimbale ndax xel mu dal nga demee. Euh, ñaari dëj yi année ba ñu génn sax xam naa ne comme que maa ngi soog a toog ci micro. te ñu génn ci benn at boo xam ne jeexagul mais ñi fi ñàkk dafa bari. bari na yow mii danga di xale rek mën a muñ xam àdduna waaye sa waajur bu góor di sunu nijaay góor gi jaañ def lu ne ci ci làmb ñu fekke ko. nekkoon nit ku véridique doon juddu dëkk bii bokk ak Basirou Diagne génn àdduna yow jaale nañ la ko waaye xam nga Khady Diouf jël woykat bu mag boobu moom tamit ñu ngi koy jaale waa réew mi bu CNG moom tamit ñu ngi koy jaale góor gi Baamar Baamar Wadd Wadd moom tamit ñu ngi koy jaale loolu moo lay won ne bil ñoom ñëpp nag dañu bari mm-hmm. ba ci doomu duuba lees bu jigéen bii nga xam ne mm-hmm. ndeysaan xaritu papaam la woon mm-hmm. génn àdduna bërki dem ñu ngi koy jaal duuba lees di ko jaar waa këram di ko jaar surtout nag le roi des arènes Balla Gaye te xam na nag dee moom day wër rek fépp la dëkk waaw moo tax fu waay ne rek na fa def lu rafet jërëjëf euh, jërëjëf euh, Alaaji ngaar yi euh, tey waxtaan wi nag dina sori tuuti ndax daanaka ñëwoon démb lay nekk Euh, tey damay njëkkee ci alaaji Ibu njaay ñoxo bay alaaji bu tey bu ma lay wax tey fan nga toppe làmb ak fu la làmb toppe nga ne fu la <laughs> làmb toppe fu làmb toppe ak foo toppe làmb euh, maa topp làmb foo ko toppe voilà bëgg-bëgg yëpp dañoo bokk day ci neex neex mhm. ku bëgg xam sa bopp da ngay dellu ci sa cosaan ci ban at la 58. Euh, 58 nga toppe lamb. 58 bi Alaaji Mboor Ñing mhm. le 2 février la le 2 mars 1958 ba Alaaji Mboor Ñing demee Casamance jëli Fodé Doussouba. Alaaji Mboor Ñing mooy bàyyi Biram Ñing mooy bàyyi Alaaji Biram Ñing waaw kay. ba 58 la jëli Fodé suba ñu teg Fodé Doussouba ci car di ko wëral Ndakaaru keroog car boobu. Hmm. dama dama cee toppe Ndimsaat waaw. jaar kolobaan di daw di daw ba rue sept keroog maa nga añee kër maami kii kër yaa maada ñang rue sept laa añee keroog ndimsaat kolobaan ndimsaat ba rue sept ma topp ci uh, oto Fodé boobu mhm. Fodé Doudou Ba moomu moo fi indi barabara le professeur mhm. barabara moomu moo àndoon ak Falaye Baldé mi nga xam ne 1963 bëri na 138 combats am ci 4 défaites ak 2 matchs nuls. ca at moomu. waaw waaw benn défaite ci Babou Njambaan. benn defet ci Bécaye 2 benn defet ci Landing Jàmme benn defet ci Boy Ñàgg ca la booba kan mooy ibu Ndiaye ñoxo baay ci jamono jooju booba damay mbalax waaw xam nga euh, ipongaar yi waaw ñoxo baay euh, booy lamb uh-huh. daanaka bu nee ñooy làmb waaw booba bu ñu ñëwee arène sénégalaise ñii il faut ñu randang pour dugg man il faut ma teel a ñëw duma ma añ kër ñoom Ipola añi wala ma añee feneen. léegi jógee nañ 58 ñëw ban année. ñëw 60. 61 62 waaw. booba il faut mu ñëw kër ñoom Ipo. Mhm. pour añ fa pour mën a teel <laughs> dugg ci làmb ji dugg ci làmb ji waaw. randang randang jooju ci la xale yi daan jàngee tëgg. booba kan mooy tambour majoru làmb ji. booba tambour majoru làmb ji mooy alaaji. Euh, euh, euh, Daouda Faye Daouda Faye Daouda Faye Cheikh Fatma Ndiaye waaw. parce que. Mhm. làmb xam nga ñu bari dañ naan bàyyi bu naa. Mhm. bàyyi bu naa mhm. tëggkatu falang la woon mhm. parce que mbër mucc ne da nga amoon tëggkat Modou Ndiassine Ndiaye Abdou Karim kenn ku ci nekk danga daan tëggal mbër waaye bàyyi bu naa dafa gën a fës ca euh, euh, Alaaji Abdourahmane Ndiaye falang fo ab falang féete fa waaye lamb ji ki ko daan tëgg mooy Daouda mbay bàyyi ma cheikh il faut ma rendance pour tëgg pour ma tëgg waaw booba ki may supporté ki ma jëkk a mooy Bécaye 3. moom mooy jëkk a supporté. waaw euh, euh, borom sëf. sëf waaw. Bécaye mhm. moo yoroon arène euh, drapeau des arènes sénégalaises drapeau arène Gabar Ndoye. Mhm. drapeau arène Sambay Sall. ba ma jógee ca Bécaye 3 nag amatuma mbër. damaa mhm. damaa topp Falaye Balde keroog ba Falaye Balde bëri booy ñàgg ca kaw Kaolack. Euh, sama patron daf ma ne bul euh, euh, na nga toog fii xaar. boobu loo doon liggéey ba am patron. boobu ah. apprenti tailleur woon. boobu apprenti tailleur nga. waaw ma. <laughs> waaw bul dem bul dem làmb xam naa la. Hmm. moom daal di dem làmb ah. mais gis nga. <laughs> te ni la ma bàyyiloon ne ma pour nañ ko jël si. bés boobu. ca bés boobu damaa tëj atelier atelier bi. Ah. dugg ci carré Antoine Khoury yi fay deux cent vingt cinq <laughs> wàcc Kaolack. sama patron dafa jekk ba ceeg rek seet ma may mbalax. mu ne ma ana caabi atelier bi ma ne ko mu ne an tëj na mariage ma ne ko tëj naa ko ca biir mu ne ma indi caabi ji moom seetaanul làmb ja keroog. Kaolack Kaolack man maa seetaan làmb ja keroog. Kaolack la déparé. Kaolack la déparé ñëw Ndakaaru. bi mu dikkee mu ngi fekk borom tënd mariage bi taxaw ci buntu atelier bi di ko xaar. te bés boobu lañ ko doon marié te bés lañ ko doon marié. nga xam ne làmb dafa doy waar. def nit lu ne. defaloon nit lu ne ma ñëw ma ñëw jeexalaguñu ñu euh, Hadj Po euh, yow fu la làmb toppee ak foo toppee làmb. micro bi micro bi waaw. ngañ. Hmm. man dama juddu rek ànd ak làmb. da nga juddu ànd ak làmb. waaw yan at lañ ko jàpp. bon cinquante neuf. waaw. boobu c'était hmm. xam nga ñun dañ dëkk Médina. Hmm. le dix neuf en le huit. waaw. dëkk ak Laama Buna Baas. dëkk ak Vieux Seng. ñu nekk seen digg jamono. dëkk ak seen pàppa yàlla na ko yàlla yërëm Daouda Faye dëkk ak góor gi bu naa baas mm-hmm. ba pare nag sama nijaay yàlla na ko yàlla baal te yërëm ko Alaaji Amet Jéen mm-hmm. ñu daan tëgg mbappatu sanc ba mm-hmm. te sunu kër ak sanc bi presque benn la ñoo am nag daara bu ñuy jàngee alxuraan kër Seexu Dem sunu sëriñ waaw yàlla na ko yàlla yërëm mu am fa xale boo xam ne daanaka jinne la ñu koy wax Amadou Kati Diop ñuy jàng ci biir alxuraan bi mais di bërintu kati mii tey waaw alaaji kati dem na kati mii jiite waaw kati mii yor écurie Dakar waaw ñu nekk ci biir alxuraan bi xam nga boobu alxuraan tund bi yëpp dañuy jàng si waaw waaw léegi dinañ am waxtu yoo xam ne mm-hmm. Mm-hmm. dañuy am waxtu yoo xam ne mm-hmm. léegi genre récréation lay doon dañuy bëre dañuy bëre ñu lu ñu gën a dem rek champion yi di gën a génn. groupe ca jamono jooju vers cinquante neuf. waaw ah. ñuy dem di bëri ah. di bëri di bëri. mu jigéen nag mbapport sanc bi. Mm-hmm. waaw léegi moo ñu intéressé ndax alxuraan bi ak mbapport sanc bi benn la. Mm-hmm. léegi dañuy dem jël ndënd yi dugal ci biir ñoom Pa Daaw ñoom Pa Daaw dafay ñoo fa nekkoon Pa Buna góor gi jogo yoof daan ñëw di fa tëgg seen yooyu dafay njaay waaw léegi nag ñun bu ñu defaree li ñu defar pat dañ dem ci ginnaaw nag di bëri ci gannaaw tàppaat ba waaw waaw di fa bëre euh, kat nekk koo xam ne kenn xamul ban façon nit la mhm. boo dawee taf ko mu boot la boo yéexee mu jël si la moom daal noo def mu daan la ba ñu ràññee ko te te boobu xale lañ ñu naan kii kii kii bu màggee doon bëri kii foofu nag ñoom man ak moom dañ doon bëri. mais mhm. comme que màggee woon na ma tuuti kii kii. ci bëri bi waaw. lim may daan mooy. mooy ëpp man li ma koy daan waaw ba doon ñeen sax. Mhm. jël xeer toj bopp bi na ma doom yi baal. ah boo jaar ngeen foofu. foofu yëpp lañ daan jaar ma daw dugg suma daf may dàq ma daw ba dugg suma rondolu maam. <laughs> dem làkk fa waaw sama maam ne ko yaa ko tooñ. yooyu yëpp ma jaar ci léegi nag euh, ñu jógee Medina. Mhm. daal di ñëw Fass na ñëw Fass. làmb may topp de. waaw pour man saa maam dafa noonu alhamdulilah sax njaga dina bàyyi làmb ji. Mhm. ma ñëw Fass koñ bi ñuy dëkk Boy Naar Fall dëkk fa. Mhm. nekk le premier champion nag. guddul rëyul. waaye boobu ñu ngi ci ban ane boobu les années bon 63. voilà après l' indépendance. waaw. Boy Naar Fall nekk fa nekk champion nag man bëri am fit ñoo bokk koñ nag mais yàlla def na man supporté wu ma ko te mbër ga ma ga ma toppoon mën a bëri ga ma toppoon euh, ci leen mhm. bu bu bu ko raw moo ma fekk si Fass léegi nag bi ma ñëwee léegi ñu ñu may woowee ñàgg numéro 2. booy ñàgg. numéro 2 ndax daf ku ma ci fiir rek. Mhm. bu ma la mbëkkee ci biir nga boo jaaxaanee say far mën naa jaaw. <laughs> ñàgg deux ñàgg deux ñàgg deux léegi nag bu ma xëyee man dem au lieu ma dem jàngi sàjj làmb rek lay dégg ñoo ko ñu ne ran tan gin wuran tan gin gin wuran tan gin gin ma ne eh, damay daw mu mel ni jinne ya may këf <laughs> ma daw rek àndandoog àndandoog sabar ya <laughs> hmm. wuti wuti wuti wuti tëgg ma wuti wuti tëgg ma ndeysaan moo tax sama benn mbokk nii yabu ma ci li ma li ma yàlla def mhm. xeebu ma ci li ma yàlla def mhm. ndax ko judduwaale dala ci fonk daf ma ci fonk au mhm. contraire sama yaay ji ma jur tamit maa ngi koy ñaanal di ko wadd Badara Mbaye daf ma ci daf ma ci fonk parce que xam nañ ne du loo xam ne lii dama toog ba màgg jaaxle wala à bas âge la la ma ci la ma ci yàlla def boobu boobu lu ban métier ngay jàng boobu maa ngi jàng école. Mhm. ah boobu yaa ngi ci école bi. parce que du ma nulaar aussi. Mhm. j'étais à l'école mais tëgg dafa am daal boobu temps affaire jinne ngi ci. Mhm. parce que nga dama wax. waaw ndakaaru soppeeku. waaw da nga daan toog wookaam dégg sabar ba géej a way. te doo xam man dal na ma ay yoon yoon ngay jóg di ko topp di ko topp doo gis tëgg ba réer doo xam fan la yooyu yëpp amoon na biir nag euh, ñoo ko dafa ne Fodé la njëkk ràññee yow kan nga ñëkk ràññee champion yi. non yi may ràññee dafa bëri. ki nga njëkk ràññee. nga xam ne kii waaw waaw ci champion yi mooy ki ma kuñ ma tudde woon booy ñàgg. booy ñàgg. ni ma ko ràññee woon booy ñàgg yàggul sax mais riñaanam. Hmm. fu laam ci biir lam entraînement am ni muy ñëwee. Hmm. dënn bi peeg yi ak hmm. tànk yi. ah boo ñàgg beneen mbër la woon. Mhm. Euh, ndem si yàlla faalaay def ne Alaaji Mboor mu ne ko naam mu ne ko amoon na yi mu ne ko ban problème mu ne ko ñaari mbër am laa am problème mu ne ko ban ak ban mu ne ko perte nañ. Mhm. boo déggee luy riir ci suuf rek moom la. Mhm. booy ñàgg ci suuf rek moom la boobu mbër yi dañ daan song boo perte nañ guddul rëyul mais dafa dafa nekkoon nit koo xam ne yéen a tolloo. mais daan na faalaay jël drapeau bi. ay booy ñàgg. Mhm. daan na faa lay jël drapeau bi yooyu yëpp fekkee naa ko ba pare nag ngañ. Mhm. bi ma ñëwee Fass nag léegi ma bokk booy naar wax naa la ko. Mhm. supporté wu ko. ñuy dem di dem ba Fass commencé ñàkk mbër ndax booy naar dafa accidenté. ànd ak Ibrahima mbay baayu yaa xam mbay bii te ñu accidenté fii ci ci pomu sëñ Abdou bi léegi moitié bi damm nag mbër gi taxaw léegi ñu tumuranki mbër yàlla jékkee-jékki rek génne mbay géey te jamono jooju waaw boobu xamoon nga mbay Gueye Mbaye Gueye yaayam ma yar bi non booba xamoon nga ko bañ a xam lu booba yow est-ce que yaakaaroon nga mbër ci moom boobu Mbaye Gueye euh, dafa maîtriser alxuraan bi téye mécanicien bi mhm. yaayam yéex a doom bu jigéen mhm. mais moom mu nekk góor ak jigéen mhm. il fallait waaw il fallait moom tamit mu arrivé ci ci xamoon nañ ne mbër la parce que bu guddee foofu ñu def marché face bi tey waaw ngañ yaa ngi koy fàttali. fàttaliku te mu dañ defoon fa suuf soxna ko sax. ñoom as joolaa ñoom mhm. as ñoom ñëpp mbéy yi leen daan daan. ca foofu. waaw te boobu duggagul ci arène boobu duggagul ci arène. léegi nag diggante bi mu dem armée en 68 ans quelque chose comme ça. Mhm. toj armée bataillon ba yëpp mu daan leen ñëw nag di sumi tenue bi. Mhm. di ko làq. Ah di dem Karewen Serail. du xam nga Caroline Seraing. kii maison kii euh, déedéet kii kii. Euh, maison de la <laughs> maison des jeunes. maison des jeunes. ñoom yow xam nga ne. <laughs> maison des jeunes xam nga ne yow boo gisee mbër léegi bëri. Mhm. maison des jeunes mhm. mbapat yee moo amul. maison des jeunes fàttaliku nga Mbaye Guèye ba muy dajeeg Moussa Mborodi. Mhm. Oh. te Moussa Mborodi nekkoon digg bi nit nekk tukkulóor boo xam ne bu lay daan da ngeen di jéggi fii li mën nga faa jóge sa loos dama wala nga xam. foofu nag la mbay Gueye lu ko foofu la Mbaye Gueye lu ko koo waaw sa digganteeg Fass ñoxo euh, loola booleeg Pikine euh, jërëjëf euh, Alaaji Ngagne mhm. man Pikine dama faa yóbbaale bëgg làmb da ko yóbbaale sama premier doomu aadama bi ma daan tëggal ci làmb mhm. mooy Babacar Thiaw Bokaam moom nga njëkk tëggal moom laa njëkk a tëggal nekk booy di mbalax di ko topp keroog bu muy bëreeg bara fii ci arène sénégalaise keroog damaa réer dama dafa dafa mbëkk bara bara bara bara toog mu jël ma rek dugal ci biir oto bi yóbbu wakaam jël la yóbbaale yóbbaale fekk ma yor tungu ni di mbalax daf ma daan wax géwél su ndaw mbalax boo màggee da ngay baax bi lay mu daan bàkkol mu naan doolay Alassane seeni di san maam gërëm di san maam waaw naan doole ji ci san baay gi ci man lem na ko ñaar ca waaw saf xorom bari bayre boole kenn du tooñ Babacar waaw nee kenn du tooñ Babacar euh, euh, loolu Euh, kooku laa jëkk a àndal ci làmb. Mhm. mais bi ma toxu jee Pikine. Euh, mooy Babacar caw ma ndaw. mooy Babacar Thiaw mu ndaw. waaw mu ñu tuddee nee na moom lañ duppee bàyyam. bàyyam waaw waaw waaw. dama bu ma euh, bu ma saan a guddi moo ma daan indi suñu kër. ay minuit minuit demi la may indi. parce que bu ñu nee Babacar Thiaw ay bëri rek su sama yaay gisul ak sama papa rek duñ ma wëri. Mhm. dañ naan ah, Babacar Thiaw ko yóbbaale. Euh, kooku kon kooku moom laa jëkk a tëggal ci. nga dem pikin ma dem pikin nag bi ma ñibbee pikin yàlla def Pikine am ba pat may tëggkatu sabar booba nag maa ngi màgg. Mhm. di jàng ñëw Sandaga. Mhm. mais bëggoon sabar. parce que bi may bi ma demee au lycée Mangabou li may yàqal ci lépp li li yàqal. ci jàng euh, euh, moo ma yàqal. waaw ay sabar laa daan bañ a dégg. saj wuran tàndaj gin kin wala wuran euh, euh, euh, a mbàccax wuran a mbàccax bu ma ko déggee jeex na doo dootuma am sago bu ma toogee ci biir classe bi il faut ma demander la permission su ma génnee ku ma dendal ku ne dama ko naan yaa may indaaleel sama saak hmm? foofu ngay dégg sabar gi booy boo fekk ma looloo tax ñu dàq ba école yow it nga dugg ay nulaar yow it nga dugg Pikine ma dugg Pikine daja faak champion daja faak champion mais avant may day ak champion ba waaw champion ba dañoo bokkoon classe Médina ah Pape Diop xanaa boobu mu ngi rue neuf. Pape Diop waaw rue sept laa mu juddoo rue neuf. Ah, <laughs> ngeen bokk classe. bokk classe suñu maître ma ko ne Diop Birahim quand tu seras grand quest mu ne lutteur. xam nga loolu woon lool waaw récréation bu ñu masaan a génn Pape job day yenu gars yi dóor ci suuf rek ñaari tenue lañ ko daan jëndal tenue kaki bleu ak taki kaki kaki marron hmm? waaw Diop Birahim day bëri rek. lii lépp day tax suuf. buñ jugee buñ génnee récréation moo tax. bi ñu de bi ñu àndee nag ñibbi Pikine. bi ñu mhm. toxalee Pikine. waaw bi ñu toxoo jëm Pikine jëm Pikine. boobu la wax naan oto bu mu nekk Pikine la jëm ca golo ya ca boobu wax naa ko barki dem école 2 buntu Pikine école 2 googu lañu ñu àggale suñu CM1 CM2 maag ak ñoom Ida ñun foofu la ñu jàngee ak ñoom Maguette Wade ak Djibril Ngom mii. Mhm. doon wut réew mi. ñun ñëpp foofu la ñu jàngee. Mhm. léegi nag may màgg bi may màgg nag boole tëgg mi ak jànga ñaw nekk tambour major ñu indi mbapatu noflaay demal mhm. mbapatu noflaay mhm. ba dara ñang moo woote noflaay mhm. ànd kook naar waaw naari seeraas yi ñoom zalëk ñoom njaga souleyman ñoom atiix ñoom gool ñu ñu def ko nag euh, mbapat moo xam ne dañ koo defoon diggante tali bu bees ak télé bu mag ma di ko tëgg jërëjëf mbokk yi euh, tey defe naa ne dellu nañ démb ci alaaji Po Ndiaye euh, Pongaari ak alaaji Ibu Ndiaye ñoo ko bàyyi euh, ma leen koy wax nag ñii ndekete caaxaan boolewu leen booy xool sax ci baatin rawaan na leen boole ñii xoolal ku ci ne li yàq sa jàng ku ci ne li yàq sa métier ba pare nag ñu daje ci tey kon defe naa ne àndu démb woon daañu ci dellu si mbokk ñu dem dem. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu demee service commercial ak euh, sunu sponsor Miso euh, di wax ne euh, boisson la boo xam ne gis nga sportif yi ni ñu ko bëggee parce que tamit dafa am lu mu leen di dolli te it température bu ne Miso àndu nag moom muy sedd di tàng xam nga. loolu dafa am solo kon ñu ngi leen di gërëm bu baax leen félicité euh, mbokk yi dellu soit nag euh, ci toogaay bi nga xam ne nee naa leen plateau bu spécial la am euh, boo xam ne bii ma seq kook ñaar alaaji Ipo Ngari ak alaaji Ibu Ndiaye ñoo ko bàyyi alaaji Ipo ñi ngi woon ci sa jaar-jaar Fass ngay ñëw nag ba trouvé fa champion bu ñuy wax Mbaye Guèye tey mën loo ñu mën a indil ci ci ci année yu njëkk ci Mbaye Guèye ci làmb Eh, yan anecdote nga ñu ci mën a indil d'abord balaa ñuy dugg ci beneen waxtaan. mais yéen dafa neex a ah, dafa neex a nu mu tudd parce que Mbaye Guèye laa gis mbër mu liggéey premier combat ba grand combat. Mm-hmm. mosoo laal premier combat. ba grand combat. mosoo daal. mosoo daal ba ni mu jëlee drapeau bi ci Robert. Mm-hmm. loolu déjà. ndam la loo xam ne ndam lu rëy la ci wàllu làmb. Mhm. boole kooku Baye Demba Waar. Birame Samb Bari. Mhm. Jean Mama ñooñu ñoom ñëpp mbéy mi daf leen dajale ci benn benn tax. Euh, lu keeku nag dajeeg ñu mel ni ay sànjambu. Mhm. xam nga mbay géey am na beneen tur buñ ko daan woor ay tur sax lañ ko wutale mais keroog ba mu bëreeg sànjam sànjam bu teppi arkat nga xam ne bu doon jamono bi tey dañ naan ardu am na ci yomb abandonné mhm. jox ko la victoire waaw Mbaye Gueye di nàcc di nàcc di nàcc ñu ne léegi dañuy arrêté combat bi mu féqu boobu xam nga kiy pikiir déedéet sa sa sa nijaay mhm. euh, Idi Samb moo daan pikiir bu ngor waaw mhm. nga am pikiir léegi pikiir yooyu nag xam nga amul woon sax ANACIM. boobu yow foo tollu ci làmb yow yow noo defoon ak Mbaye Guèye jour boobu. nu defoon yow sa réaction jour boobu. sama réaction parce que dañuy wax contre sa njàmbur sa njàmbur yow Hippo en tant que ku sopp Mbaye Guèye ne ci wetam keroog lu doon sa réaction. parce que ñun Mbaye Guèye dafa am lu mu lu mu lu daan wax toujours quoi. Mhm. waaw bu kenn bu loolu lay wax. woowu ma kenn ci géew bi buñ may rey man ak yàlla la ak sama adversaire loolu la ñuy déparé samedi bu kenn yàq suma la bu kenn dugg ci géew bi bu kenn yàq même buñ may rey même buñ may rey génn leen ci léegi loolu loolu la daal parce que pour après boobu boo jëmee def dara guddi gi mën na la gis sax ngeen xeex bu def boo yàqee da waaw jéem boo ko jéemee yàq donc ay affaire am dafa neexul moom daal téegéer la rek mhm. yàlla may ko ci làmb mu mu mu mu bëreeg Sanjambur gaañu ñu bañ mu ñëw bëree ba ku bëree ba continuer mu daan ko ci suba ba ñu yeewu yamar journaliste bu mag daan ne un nouveau un tigre est né à Fass. Dakar matin Paris Dakar. waaw la ci woon waaw amoon na bu mu ci doon. Dakar matin la. waaw daan ne un un tigre est né à Fass. il s'appelle Mbaye Gueye di Babacar léegi nag fa la turu tigre bu ci. ca la jógee léegi nag ñoom Ousmane Ngom ñëw. booy Pambal euh, ñoom Madiaw Ndiaye euh, bari nañu Mbaye di daan rek nag te xam nga Mbaye Dièye ak Falaay ñoo yem. Mhm. parce que dañoo am mënin boo xam ne bu ñu ko xasee ba employé rek seen i dañuy daal jóg. Mhm. Falaay Balde bu la Moussa ne nii. téye la xam nga lu Adama Diakhaté di wax. Mhm. danaan càppaacoli ga jàppati na ba mu yàgg mu ne turbine ba jóg nañu. yaa mu ne faa lay daan na loolu rek lañ nekkee moom. bay dee sol na ko. Mhm. ñu ne ah laal na ko bay dee daan na ko donc bërikat ci biir bëri bi war a bëri mbër gi nga doon war ngaa mënin. mënin mhm. yow kooku mooy sa signe daal. Mhm. boo ko dëbbee rek ñu ne jël am na wala ñu am yaakaar ci yow donc mbay géey digganteem ak Double Less ñu bari xamuñu sax lu mu doon. Mhm. mais fekkee tax ma koy waxtaanee. Mhm. Cissé yàlla na ko yàlla wóor ndax Cissé dafa ñëwoon nekk sëriñ dëkk Kër Mbaye ji ko. Mhm. may sax ci fii ma toog nii dig naa ko ci yorante bi maa ngi ñaanal yaay Satu Njaay. seen yaay laa wax. ñaanaloo mhm. moom mbay gi ñaanaloo na taxaar. Mhm. mais euh, yaay satu Ndiaye. Mhm. yàlla na ma ko yàlla xaaree laaj. amiin yaa ndax ndax moo féete woon place bi yaay. ndax ñëpp xam na ko sax donc loolu triché wu ko mais mbay gi diggante moom Moussa Gane xam nga gan dootoo ko fàtte. waaye keroog ba muy dajeeg Robert. fii ci ci ci nu mu tudd dootoo ko fàtte. mais ma ñëw ci Double Less. Double Less moom ngay ay frère. parce que c' est grâce à mbër bi ba Double Less nekk mbër bon fii ci Dakar. boobu nu ñu demee ñoom ñaar ci biir kër gi. boobu Cissé moo moo moo ñëw xam boobu njëkk ba néegu panthère téeméer ak juróom. waaw waaw waaw sax bu ñu la nuyee dañu leen dimbal pare ñu la jox añ fa nekk waaw Double Less ko fii la champion bi présentation moo ko dugg waaw Double Less bokk di dem di dem ba du jàng xam nga demul Dakar. Mhm. sa bopp. Mhm. gis Double Less nag waaye ponkol mu toll ni yow ngay ànd ak ñi te yàlla mën ah. boobu Double Less ak Mbaye ay frère lañ. ñoo bokk kër gi ñoo bokk ñooy. Double Less léeg-léeg mu fanaan ci Cissé. Mhm. léeg-léeg mu fanaan ca ginnaaw. kër ba kon ba ca ginnaaw. ca ginnaaw waaw mais mujj nag comme que sol nañ ko ay xel moom tamit mu commencé rocceeku ndànk-ndànk. ñoom jur daan jaar ko. wutal mhm. ko place jox ko kooku ci. Mhm. léegi nag sonal ko boole koog jur bakk mu bëri foo bëri bu rëy fii ci arrêté Sénégal. jërëjëf eh, daañu ci dellu si dinañ ah. mës a ñëwaat ci démb. Eh, Alaaji Po eh, Niakho ginnaaw loolu yow it nga dajeeg champion. Mhm. Pape Diop. waaw anecdote ngay nettali ci Pape Diop. waaw ci comme du mbéy mi nekk bi ëppoo nettali ci mbéy waaw dama nekk tambour major. Pape Diop loolu may def ak moom Medina yëpp ba ñu ànd tox ci Pikine euh, mu nekk ci mbapat yi bari may tëgg mbapat su ma nekkee tambour major Pape Diop grace à Cheikh Thierno Ndiaye Thier moom bi mu demee nag ba xam ne Pape Diop kandaalu hmm. bu ñëwee ci ci mbapat yi daan eh tukulóor danaa kandaalu ari hmm. kandaal lañ wax booba xandaal la tudd xandaal waaw waaw booba da la daan jàpp <laughs> di wëndeelu ba nga miir mu soog laa daan bu tuddee bu dikkee rek ñoom <laughs> dingo eh, eh, ñoom Moussa Mboro dégg <laughs> eh, ñooñu bu di bu bu Pape Diop ne salaamaaleykum nag ñu ne kandaalu ari kandaalu ari bi mu demee nag ba war a dugg arène la ko ca di ànd ak ceer booba mooy entraîneur Pape Diop mm-hmm. moo koy tuur saafara yi mm-hmm. moo koy def lépp cer na ko boo bëggee nekk champion jëril ño ko droitier la te ndijoor mooy tëggal mbër bu la tëggalee nga nekk champion. li nga tax ñu daal ko gauche làmb yëpp de. wallaahi. ndijoor. waaw dama ne càmmuñ du tëggal mbër. waaw ndijoor mooy tëggal mbër. ah kenn benn secret de. looloo waral alaaji du Njaay Kumba Rose bu ma bu mbër masaana ñëw di di di di tuus mu mu éliminer càmmuñ bi jël droite bi. parce que moom rek laa ji muy tëggee gauche droite. moom ñaari loxo la. ñaari loxo la moom rek mooy tëggee gauche droite heure bu mbër dikkee ñu war laa tëggal El Hadj Doudou Ndiaye Coumarou da ji mu changé. galan bi indi ko main droite. loolu moo tax ñu ne càmmuñ du tëggal mbër. Mhm. may tëggal Pape Diop Pape Diop mbapat noflaay maak moom maak moom ba muy daan Moussa Moussa Mboro di maak moom ba mu dugg arène euh, Pape Diop. naar naar sàmb la jëkk a bëreel arène sociale ba ca Pikine arène sociale mu nga nekkoon tey boo booy dugg Pikine rek gazel fa la arène sociale ne woon fa la Pape Diop jëkk bëre ak ku ñuy wax naar Samb naar Samb moom léegi ba allaaj naar maa ngi koy tooñ sax naa mu jàkkal la léegi ma di ko may jéggalu ci loolu ma wax rek mm-hmm. waaye moom la Pape Diop jëkk a daan ci arène ñu ànd ak Pape Diop nag dugg biir biir biir etsat bokk ak moom arène sénégalaise Pape Diop euh, mbër mbër la moo xam ne euh, euh, ngañ hmm. dinaa la nettali loo xam ne Pape Diop def na ko quoi hmm. Pape Diop ñëw ci lamb ñu di ko présenter Père Ali daan ne dama am mbër mu bees quoi mu mu keroog xam nga ku doon bëri perte ne ak kan déedéet keroog Giren Coor moo doon bëri ak kan keroog daal graine cooro doon bëre mais mu dikk graine coor tous ba pare Pape Diop ñu présenté ko mu dem di dëkk graine coor. moo waroon bëre <laughs> te graine coor rek bëre grand combat bi waaw moo war a bëre ñu dikk di ko présenté pa père Alé Dalle am naa mbër mu bees Papa Diop la tudd Boston di ko présenté jëlal ndënd mi samp mu dem di dëkk. samp ko mbër ma mbër ma mbër ma muy dem di dëkk graine coor ma ma ma war a bëre grand combat kon. nga xam ne mbër. Mhm. yàgg na ma ànd ak moom nag. Mhm. mbapat ba arène. moom rek la wax ne le jeune champion de Pikine. Mhm. est rompu aux technique et à la lutte gréco ba mu dem ba mu dem na ci réew yëpp indi médaille joxe ne nañu Pape Diop est venu avec un pied plâtré. mais la tête haute. dafa am nag lu mu lu mu mane woon. mooy waaw Pape kuy takk ngemb ci lamb ku ci dàq bëre Pape Diop amu ci. Mhm. parce que Pape Diop ñaari tànk yëpp la daan bëree. guddul rëyul. Mhm. mais heure bu la jigéen ñee. Mhm. bu la jàppee làmb jeex. contre Mayoro Fall parce que Pape Diop bu ma saan am combat Thierno Thierno Ndiaye may dégg bésu combat bi ku Ndiaye Madaro Thiam Ida Fall doo dugg ca néeg ba mu ne. bu Ndiaye ñoo ko bàyyi mbaa Madaro Thiam mbaa Thierno Ndiaye mbaa Ida Fall. ku dul ñooñu doo gis Pape Diop ñu boole kook Mayoro ma ne ko Pape Diop kun la jox Mayoro mu ne waaw mu ne ko Mayoro nga kurpañ boo xam ne billaay bu la dalee nga taliyaañ mu ne ma ñoo ko bul wax mu ne ko mu ne ma du crochet du uppercut du direct mu ne ko mu ne ma ca biir léewaatoo ba mu ne ko mu ne bu ma bu ngeen defee balancement des bras loxo bi bu dee ñëw moom lay bank mhm. bu la ku ne tees ci manto boo sigee mu jël la mu ne ko am mu ne bu ngoonee kooku du ko may mu léewtoo arbitre dane far Pape Diop jël loxo yi teg ko ci bëti Mayoro Mayoro mhm. arrière Pape Diop ne ko ciix daan na ko ba dem ca langa ñu soog a ñoo hmm? ñooñu ay bërekat lañu ñu woon Pape Diop bërekat la woon dafa doon ko Pape Diop dama ne Double Less bu laalee suuf fii ci réew mi ma ci télévision laa toog di ko wax mhm. Double bu laa laalee suuf ci réew mi mhm. boo ko laajee ak xulaayi talam diggante mag yàlla premier defetam ci mbapat Pape Diop la mais gis naa seen eh, seen lamb Ibamar mu Doubalès jël taf ko te mënul taxaloog Pape Diop. parce que dafa ma ne woon. waaw ah. Doubalès bu la jàppee. waaw waaw heure bu laxasee nga laxar ci. nag. xam nga xam nga loolu fu mu ko ko jëkk a defee. Mm-hmm. mbappatu booy bambara. keroog euh, boisson bu ñuy wax wéri gut lañ ñu jëndal. Mm-hmm. keroog Pape Diop bi mu daanee bi mu bi mu bëreeg Doubalès rëpp ko. ñaari kees wéri gut la ñuy jëndal ñaari kees wéri gut waaw euh, jërëjëf alaaji Ippo alaaji ñoxo ñoom la am mbokk yi euh, deuxième journée bi bëri nañ ko ak sorti euh, sortie Mouniang production dañuy dem ba stade Iba Mar Diop ak jàngatu Cheikh Thierno Ndiaye ci li nga xam ne mooy combat yi nga xam ne amoon na ci stade Iba Mar Diop dellu si waat ci plateau bi téléspectateurs yi à travers le monde entier ak ci réew mi di Sénégal ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dimanche bii tey di 24 novembre 2013 di ñaareelu bis bi nga xam ne ñu ko wax deuxième journée désespoir bi nga xam ne sëñ Modou Niang ak Mou Niang production ñoo ànd ak ñu ànd ñëpp nag ànd ak TFM nag télé bi xam ni ca dëgg dëgg dëgg moom daal àddina bàyyi nañ ko xel yal ko yàlla jàppale jàppale ñëpp ñu ñëw fii. nar leen war nag premier combat bi nga xam ni ci juróom-ñaari combat yi mu taxawal ñu julli tàkkusaan rek mu delloo làmbi démb julli tàkkusaan rek tooguñu xooluñu noppalikuñu lu dul ku ci nekk bi nga ci biir làmb ji bi nga laasimee ba yeggale rek sëñ Modou ni premier combat baa ngoog arbitre bi sifflé génn seen diggante ñoo ngi léew too ñoom ñaar nimaa ji wextaan nimaa ji wextaan Nimaji wextan songo nañ róof foo ñoom ñaar Nimaji wut fu muy jàpp wextan wut fu muy jàpp lan mooy am lan mooy am fëgg na ko fëggatiwaat ko ko dëbb ko sol ëñ mu bañ róofoo nañ téye téye ñaari loxom la téye ci biir ngemb li mi ko mi ngi ko mi ko koy jox mi ngi ko koy fëgg lan mooy am bëre nañ làng de ñoo ngi ci làng gi de ñoo ngi ci làng gi ñoom ñaar ñoo ngi ci langue gi diggante nimaa gi ak weextaan ñoo ngi ci làng gi ñoo ngi ci langue gi ñoom ñaar ñoo ngi ci làng gi ñaari xale lañu ñaari yaakaari làmb lañu ñaar ñu nga xam ni tey ku ci daan di nga fekki sama gi la xam ne ñoo la féete kaw loolu la sëñ Modou di indi ci làmb ji moo tax day metti xale yi dañuy ñëw pour wane seen bopp pour wan ñun nii ci ñu ëñ ko taf ko lan mooy am na ñimaaji bitterñina waxtaan waxtaan ñimaaji na ko tëgg ko ci suuf ey ñimaaji ñimaajee ngoog nga daf ko wër téye ko waxtaan bëgg a roof kal bitterñi kal bi tëgg ko ci suuf toog ci kawam ñu ñëw ci ñaareelu combat bi nga xam ne mooy deuxième journée sëñ Modou Niang sifle na ngeen seen diggante ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Modou Nixon dañ la gis gis nañ la dañ la gis dañ la gis dafa mépp rek pour dóor ñu fekki ko song ko waaw orca dafa mépp pour dóor mu duñu son fekki ko lan nag mooy am fii lan mooy am ci roofoo bi ñu roofoo ku ne dëbb nga sol sa marom ku ne yaa ngi jéem a fàqat fàqat fàqat fàqat mu bañ yokku na mu tafu ak moom si dinañu ndengeñ bi camba gama la ko teg ñoo ngi téyante ñoom ñaar téyante nañu ñoom ñaar téyante nañu fekk na ko mu bañ mu du fekki na orka bañ ñu ngi téyante ñoo ngi téyante làmb ji ñu ne daje nañ fi ñu ne Alioune Fall Mbaye Guèye ñu ne Samba Diaw Mbaye Guèye ñu ne Mbaye Guèye Ousmane Ngom faqat na ko mu tag mu bañ wër na ko sajj ko du dag lay daan waaw dafa Moodu daf ko laxasu di ko bay bu demoon ci bay bi jaab jën dem wala mu tag la nen waaye dafa bittar ñu ko pour ñëw Moodu yokk ko nag daal di ko daf ko yokk carrément gis nga daf ko di daf da ngay yokk na ko daf ko yokk jën ci biiram toog ci dëndam ñoo ngi ci ñetteelu combat bi diggante Roty ak Zator arbitre baa ngi wax ak ñoom jox na leen consigne yi mu bëgg ak recommandement yi mu xam ne war na leen ko jox lu waaye am yamale ko sa bopp te bëreelu ko ci jom ak ci ngor ak ci fulla ak fayda Roty Zator ci ëñ na ko ëñ na ko ëñ na ko jàppoo bi lan day indi Zator Roty ndax Roty dina Roty tey ndax Zator dina ko ni kenn duma Roty ruufanu ñoom ñaar mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy ëñ mu bañ jàppante bi dañ jàppante mais ci tànk lañ bëgg a bëri moom Zator ci tànk la bëgg a bëri Ruuti mel ni mbëru séeréer la gis nga jënd na loxo bi pour fëgg léegi waaye gis nga bëri bi lay privilégié nga fi mu rof loxo bi ma ngi ko rof ca ca ndigg la ba pare boo fi mu téyoon ci poxtaanu ngembali baax na waaye bàyyi na ko ñoo ngi ci làng gi ñoom ñaar ndax duñu ko wéng ndax duñu ko wéng ndax duñu ko wéng ndax dina wéng wala mu mboot da koy boot ñu ñëw ànd nañ ñoom ñaar ci ginnaaw saaku yi la lan la arbitre bii wax delloo si nañ xeex ñoom ñaar rutur fëgg na ko fëggaat na ko fëgg na ko sa tor na ruti nee na ko du fi am fëgg na ko fëggaat ko ñoo ngi xeex xeex bu metti xeex bu metti ñoom ñaar làmb teg tegi la gis nga bu rocceeku woon ñàkk waaye fii day fii day asaaloo bëre bi ni mu tafoo muy wut mbot mi di ko wut ci biir di ko wut ca biti saa yu jóg indi na coow nga dafa dës loxo bi fàqat ko mu ñëw lan mooy am mënoon ñaari xale lañu lan mooy am lan la arbitre bi wax ci ñoom ñaar kan lay jox kan lay gis nga bañ na nga da nga dafa sëpp dafa dëj dafa dëj loxoom indi ko ñu ñëw lan moo fay am ci coow lu rëy lii lan la arbitre yiy wax ndax ñu leen woowaat ñu bëri règlement bi jox na ko ndam daan nañu ko parce que hanche boo ko dóoree kële bu dëjee loxoom da ngay ñàkk waaye bu doon démb dañ leen di indi ndax ñoom ñaar doyluñu ci bëre bi mag ñu doyluñ ci ndaw ñu doyluñ ci ñiy seetaan doyluñ ci ñiy bëre doyluñ ci kon séntu woon nañ ñoom ñaar ñu bërewaat ñu gën a leer. Modou Lo ci ngembul xonq li Van Damme ca ngembul weex li Van Damme a nekk seen nijoor Modou Lo moo nekk seen càmm ñu ngi léwtoo ñoo ngi léwtoo gis nga Modou Lo téye pour dóor la bëgg Van Damme dafa bëggoon moom nu mu xeexe ak moom te waaj du ko laal. léegi nag waa ji sëkkatal na ko gis nga xeex na ko ci kaw wër nañ ko laxasu ko biij nañ ko wañ na ko quatre appui quatre appui sa ñaari bëtu am sa ñaari loxo arbitre amatul lu mu ci wax lu nu jox ndam Modou Lo gis nga loxo ba jóg Modou Lo dafa wàcc laxasu ko laxasu na ko ko mu ñëw mu wër ko mu bañ mu xalab ko ànd ak moom bàyyi ko fenn quatre appui sa ñaari loxo sa ñaari bëtu om jël kenn amul lu mu ciy werante école de lutte Habib la ne ma ngay ma ngay bañ ma ngay bañ xale bi ko daan di móodloo mën nga jóge ca ñoom Malal Ndiaye ñoo ngi ñëw ci juróomeeli combat bi nga xam ci juróomeeli combat bi nga xam ni moo indi diggante booy yëmbal ak booy ngoy booy yëmbal booy ngoy booy yëmbal booy ngooy gëdd na ko mu bañ mu dellu ginnaaw booy yëmbal booy ngooy ngooy dem na jël ko yëmbal rasu na dëbb na ko so rasu na yëmbal fëgg na ko ndax ndax fëggante du am mi ngi rasu di ko wiite ñoom ñaar booy yëmbal booy ngooy booy yëmbal gëdd na ko ngooy daw song ko yëngal taf na ko kott kal ko ñu dem génn nañ sàkku ñoom ñaar dellu si lan mooy am ci stade Diop bi xam ne lu ne am na fi bu Senghor ñaata yoon Modou Pouy ndax du ko sëkkatal xeexloo ko bu loxo bi jógee boo yëmbal wàcc tibb soññ ko mu xeex boo yëmbal wàcc daw soññ ko tibb ko bi mu ko tibbee daf ko sañaxal ñu daw ci bi mu koy song tànku càmmoñ ñoom la jiital waaye ba muy demee moom tànku ñu njoot bi la indi indiwaat tànku càmmoñ bi du rëcc daal di ko wañ la nga moo ak seen nijoor ak bi sib leen a génn seen diggante la nga ko sëkkatal dox moo ngemu takk lu ñuul lu ñuul li ci ndigg li xaw ma la nga fëgg na ko booy Zos Malika dellu ginnaaw la nga sëkkatal na ko ñoom ñaar ku ci ne kii tànku nijooram la jiital muy Zos bu Malika la nga tànku càmmoñam la nga gëddaat na ko bàyyi ko pour mu fetti benn yoon la nga xeex na xeexaat na ak moom fëggaat na ko mu dellu ginnaaw. daf nga daf ko daf daf ko pressé bëggul mu noyyi ñu mi ngi ko topp la lagaa ko lagaa gën a gis combat bi moo gën a gis combat bi ndax moo gën a jël décision gis nga ni mu sajoo ci tànkam la topp fëggaat na ko fëggaat na ko sëkkatal ko ba pare di ko xool saa yu loxo booy Zos Malika jógee dina ko song Zos Malika ana booy Malika jë jël na ko Zos Malika wi wiite na ko nga daf ko jël daw moom mu ni daf koy wéng mu dëj tànkam jéggi ko daal di ko waj mbër daal boo bëggee dégg dëgg mbër day jàngi bëri boo bëggee gis ko mën a bëri day doon ko xam ne day koy jàngal bëri waaye entraîné ñu bëri si mbaa nga regg ñu bëri si mbaa nga suur ñu bëri si bëri ci bopp la da koy jàng am bâche bi ngay nekk xale bu ndaw da ngay bërintu ba dégg daal yi ci bërintu bi ngay nekk ci sa biir marom ci xale gi màggaale ko di ñëw na Laga daan na Zos Malika jël bu set huit bu amul benn werante ñu ngi jëm ci grand combat bi kan la Ziza kan lay dajal jaaji or ndax jaaji or dina doon tey jaaji or mbaa mu doon jaaji jama mbaa mu doon jaaji përëm mbaa mu doon jaaji xaalis ñett yooyu rek ay am day yokk boppam tey mbaa mu wàññi boppam jaaji or moom ngemoo ngemu lu ñuul li arbitre bi sifflé ngeen ni seen diggante Ziza nga koy doxloo Ziza ni muy bëree wax naa leen nii booy bëree ak un lourd surtout super lourd nga xam yow li nekk ci yow ci sa koof da mën nga ko doxloo egsi ci moom bala yaram wi tàng ba lu mu lay yëg rek dégg ñu ne ah ndax saa yu naagoo foog ni moo la mën bu la sëkkatalee rek mën nga am lu ne ci moom ndax faay yi day feeñ nga sëkkatal baa ngi garde baa nga ca kaw mi ngi koy sëkkatal ñoo ngi dem zizaan koy xañ boppam nga zizaan ni mu daggee léewtoo bi yi nga ni mu daggee léewtoo bi di wër ak moom bu demee bu dellusee buy ñëw ci kawam du ko yëg saa yu mépp di nga mépp na dem na dem na song na ko tibb na tànk ba dem na ak moom yëkk na tànk dóor na ko ci suuf ziza daan na jaaji or jaaji or nag war na seetaat boppam bu baax a baax parce que lii tibb sa tànk molli ko génne ko complètement ci bi ci jël boppam boppam yëpp dugal ko ci sa biir su la dawalee gàng rek ngay def daf ko dawalee rek wiite ko ci wetu càmmoñu jaaji or daal di ko sañaxan ñu dem suuf Ziza daan ko jël bu set wicc bu amul benn werante jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu seetaanee stade Iba Mar Diop deuxième journée euh, jàngatu Cheikh Thierno Ndiaye parce que li ko waral euh, mooy defaat lecture ci combat yi jàll defaat lecture ci combat pour permettre xale yi bu ñuy seetaan euh, mën a xool seen défaut ki daanit xam na mu daane mmh. ki ñu daanit mën a rectifier wu parce que làmba école la mmh. làmba école la boo xam ne euh, ñun ñi ñëpp tey dañu war a toog di joxe ay cours ci làmb pour xale yi mën a delluwaat ci mën a bëre ndax li sax ma indi ñaari champion muy papp Diop mmh. muy Mbaye Guèye dégg ngeen man maa ko def exprès ndax ku ci ne ci ñaar ñi euh, microcentral indi leen ci làmb ñii dañu encadré mbër ànd ak mbër xam làmb mën a bëre hmm. moo leen indi ci micro central bi micro central euh, ñoom gannaaw alaaji Ablaye Naar ak ñi fi jiitu alaaji Papa Ngom hmm. yàlla leen yàlla yërëm amin amin amin euh, ñii dañu xam ne buñ ko bàyyee mu wéet hmm. te comme làmb dafa am waxtaan ñu ñëw jël ko nag ànd ci waaye lu jiitu loolu ñoom ñaar dafa am leen boole fan ngeen njëkk a dajee ba seen diggante mën a mel nii ba ay turandoo mën a génn seen diggante. ngañ. waaw kii ñoo bokk menn maam. menn maam tey laay wax loolu réew mi ñu dëkk. derete boole. jëleen njaay ak jëleen jong rek la. kon derete leen boole yéen. derete ñu boole. Hmm. ba pare nag coroñang sama yaay coroñang sama soxnaas Alaaji Mbay Aw moom la sama yaay topp si woon Ndakaaru indi ko mu sëy si mu ñëw maami kii yaamaara ñang maam maam eh, yaamaara mhm. maami kii mhm. eh, eh, ba ko maam ñanga benn bàyyi ñoxor ku ma maa ngoone lat ndagu xarisam mi ci mbett mi ci ngol maami fat bakke aj mhm. moo jël sama papa ak sama yaay may sama papa sama yaay may ko kër ko ca Colobane kon kii maada ñang maamam sofi ñang maamam magat ñang maamam góor lambay ñang alaaji Malick ñang ibra hmm. ñii ñooy borom ndàgga ñii sama digganteeg ñoom du géer du ñeeñoo géwél mhm. ba pare nag jëleen njaay sama maam ak jëleen jong jong maamam kii santul jong kii ipongaari mi njaay la sant sama maam jëleen njaay ak jëleen jong dañoo ànd jolof jëm si bawol mhm. dëkk ba jub làmbaay sama sama maam ne euh, euh, maamam euh, buñ ñu demee dalal ci kër ñeeñoo yi ma dal ci kër géwél yi waaw mu dikk dal ci kër ñeeñoo ñu ne ko kii mooy kan mu ne doom yi boor bi ñu ne ko nu mu tudd mu ne jëleen ñu ne jëleen mu jongo mame ku sant jong ku ñaaw gisoo ko moo tax ñu ne jëleen mu jongo mame sama maam am góobub tànk dal ci kër géwél mm-hmm. ñu ne ko noo sant mu ne njaay mm-hmm. ñu may ko fa soxna may kii soxna. maami kii soxna ñu ne nu mu sant ñu ne jong kon looloo ñu boole ma moom eh, tey nag ma ñëw eh, bi mu lay bi mu la njëkkee tudde doom keroog noo def. def yëfi góor rek. déedéet casquette dans sol keroog. ah noo ñëwee. <laughs> ma ko def yëfi góor ah déet noo ñëwee. booba xam nga Ndakaaru. waaw la. waaw. te ki lay tudde doom te waxuloo ko. Mm-hmm. yëguloo ko. wuti ca dara. Mm. li mu la wax nii gis nga làmb moo doy waar bari ay xam nga léegi dama ne la nga man dama découragé sax nga ne ma làmb ak coow ànd. waaw mu coow ànd. da ngay coow ba coow ak sa doomu ndey. wala nga coow ak sa sa sa mm-hmm. Mm-hmm. lu ne am na ci làmb. Mm-hmm. donc ñoxo keroog bés boobu. waaw nga may indil. bés boobu rëy na. <laughs> waaw ndax sama encadrement boobu taal. <laughs> ndakaaru kenn desul. ndem si yàlla njamali jëng ndeysaan wallaahi moom laa jiitaloon mm-hmm. gaare gaare nag lu war a man ñetti karab bi mm-hmm. wallaahi jëm Pikine waaw law bay law bay law bay Grand Dakar law bay Fass mm. <laughs> ñëpp darma waaw ñii naan ipolooy sol sama papa woo ma ne ba ma ni waaw Badara Mbaye Kaba yàlla ma ko ndeysaan ndeysaan alaaj Badara ma am na solo sosaan yi fi ne mm-hmm. daan na sama yaay ubbil ko armoire noonu laa doon solo mu ubbi ma gis casque mhm. Edgar casque Edgar yo ma ne ko papa bii laa bëgg a sol ma jël ma jël ay salaamoor xamul nga salaamoor weer yoon leen salaamoor yi <laughs> waaw puudarul nag xaw di seet noonu nga demee <laughs> noonu laa demee <laughs> ànd ak bàyyi ba bàyyi ba dix heures nag billaay rek ñu dóor bàngo rek ñu dugg coono. bàngo ji dugg ci koñ bi rek ñebale duma ndënd yi. ñu <laughs> duma ndënd yi. bàngo ji yi génn. bàngo ji yi génn. day <laughs> profité boobu Cheikh Tidiane ñaan mii tey borom yëguleen. ndeysaan ma bi lay lay seere sàgg noonu. <laughs> boobu ñoom Cheikh Tidiane ñaan ñoom dem si yàlla ñu danga jóg kenn desul faas ñu àndandoo ñu dem lii mu wax nii. ci li ma bokk moom. Mm-hmm. xamoon na ci tuuti sax mais papaam. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm. papaam artiste la woon. bu baax mm-hmm. moo jëkk ne ñoo ko bàyyi sa mbokk nga tuddee sa sa doom kii nii ngeen bokk ak lii ak lii ndax sama maam màdde yàlla na ko yàlla bàyyi yàlla ko yàlla xaree moo bokk ak màggat tey bañaan bàyyi. ak góor làmbaay ñang ak ibbu ñang papay ndey xadi ñang ak Malick Niang ñu ngay dégg ci sàtte ak Faat Niang àll yaay ñoom sooyo bu jub ak Alaaji hmm. Moustapha Niang ak Alaaji Moustapha bokk gi dafa rëy hmm. comme ni mu ci ñëwee sànq rek comme ni mu ko tuddee léegi nag euh, xam naa ne seen diggante bu ma ko fi bëgg a wax mën na jël émission hmm. dañu jëm ci bés le 30 novembre top production lan ne woon ci xelu promoteur yëpp mu togg ko yàqu mooy dajale ci benn tàkkusaan yóbbuwu leen fenn fu dul dem soo dëkk lébu bu mag mu ne falaa di terale ndeysaan eh, fan mooy yoof d'abord alaaji ngañ waaw looy fàttali ci yoof damay wax ne eh. wax naa léegi ne cinquante huit jo alaaji mboor ñi nga joon foo de du suba bàyyi biram ñi indi ko ndakaaru yoof daf doon dafay bérébu làmb mm-hmm. ndax góor gi Issa Mbeng kenn mënta wax yoof te waxoo Issa Mbeng bismi ndooy kenn mënut a wax euh, euh, euh, làmb te tëddoo ko alaaji taala jaañ mm-hmm. ñooñu ñëpp yoof lañ kon bu top production di xale bu ndaw mujj a juddu mm-hmm. di caatu promoteur yi jóg ne damay tudde paa drapo mm-hmm. waaye yoof laa koy yóbbu kon yóbbu nañ ca biram ñing waaw looloo tax dañoo jël invité d'honneur bi def ko biram ñing eh, waaye waaw dafa am fu ñu lu ñu dal ci drapo boobu lu ci dal drapeau bu am ndey ak bàyyi. mosoo ah. ko gis. drapeau bi am na ndey am na bàyyi. am na ndey am na bàyyi. Ah, <laughs> xam nga lu tax muy bàyyi. moo am moo am ndey ak bàyyi. xale bi dafa def li mu ñu defal ba pare ñuy yëkkati lépp nag delawaat ko promoteur yi jiital Gaston. fii mu ne kër Gaston la ñu jëm pour jox ko drapeau bi. Mhm. waaye dafa am yaay. Mhm. xam nga lu tax. xale bu juddoo ca ca ko ca tali bu bees. Mhm. nekk xale xale bu yàlla baaxal ñu war ko def marraine muy. Euh, madame lii euh, euh, Ndeye Maguette Diakhaté moom la ñu jël jox ko bi mu war a ànd ak délégation war a ànd ak ñoom maa jigéen Fall bu bu bu bu allée du centenaire ñoom ajaratu Tikam Ndiaye ajaratu Fama Faye ñooñu ñooy def peloton moo tax ma ne dafa am yaay am baay baay bi mooy Gaston moo jiit moo jiitale moo jiital promoteur yi ndey ja mooy madame lii Eh, eh, Ndeye Maguette Diakhaté. nuyoo rek léegi daal émission bi ñëw waaw nuyoo nañu ñu ngi tàggoo jërëjëf mais nag di très bientôt ñu ngi leen jox rendez-vous nag. fii nag la ñuy xam ne ñu ñu mhm. ñi nga xam ne nag vraiment. <laughs> parce que tamit nag mais ñëppay ñëw celui qui ne fait rien n'entend rien. ñëppay ñëw xam nga bàyyi ba nit ki dee ngay rey ay nag ki di ñëw. ñun ñu ngi dund. waaw waaye jox leen lu ngeen ñuy jox waay. <laughs> Eh, ñoxo ñoxo ala ñoxo xanaa li may tàggoo rek. mooy euh, Alaaji Ngañ <laughs> euh, euh, damay wax ne boo duggee ci kër da ngay jaar ca bunt ba euh, bunt ba nag bi nga ñëw ubbilee ba pare borom kër gi nga xam ne moo sos lii muy euh, Youssouma Jigéen Ndour yàlla may ko fan gudd ànd ak wér waxoon naa ko dama ne Youssou Ndour euh, fierté la pour ñun ndax c'est un sénégalais parmi les sénégalais te jeune boo xam ne xooloo lii la réew mi liggéeyal mm-hmm. waaye yaa ngi xool li nga liggéey réew mi mm-hmm. bu fekkee ne mag mu baax am na dalay ñaanal yàlla rek mhm. kon damay ñaanal yàlla personnel bi mhm. rawatina sunu nawle yi fi ne mhm, yow nag euh, mention spéciale dama wax ne doomu aadama bu yokkul wàññi nga te it euh, say maama dalal sunuy maam léegi rek la chien méchant am léegi ngay gis ñu jël tableau bu weex bind ci écriture bu rouge def ci chien méchant waaye bu njëkk buntu saralew la woon bu njëkk rue 1 nga daan dugg ba rue 22 lépp di buntu sarale boo duggee ci kër gi génn ci kër gi la xam nga lu ko mag ñi lu ci mag ñi jubloon mhm. bu ñuy bu bu boo jaaree fii ñu togg añ wala ñu togg reer foo jaar ñu ne la kay kay kay xewlu dagalal dagal la kër dag boo may la soxna mhm. boo fi yàgg kon yal na leen yàlla defal jàmm euh, li Ipo Ngaare wax rek fa laay tëjee di gërëm nag suñu doomi caméraman yi mhm. nga xam ne euh, peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya waaw bu ñu waree mën a gis ba doomu aadama yëpp. Mhm. di ñu di ñu seetaan ñoom ñii la. kon ñun mënuñu dara. Eh, di wax ne yal na yàlla suturaal leen defal leen jàmm ñuy jox ñëpp rendez-vous samedi di am na mention spéciale à Kéba Kanté. dama ko fàtte. mooy ki jëkk a def taranga. waaw moo barki démb. Mhm. bi dama dama yëkkati kartam jox ko rek mu ne may naa leen nag. jërëjëf kon ah, kooku moo jëkk a def action. kon nañ ko wax ba Sénégal gépp xam ne bu ñëpp defee ni Keba daal. ñox ak Hippo <laughs> du ñu wax dara. moo lii lañ ci am ci ñoom euh, amuñu lu dul ñu am bés nag ñun ñu jël sunuy émission jagleel leen ko parce que sunuy mag lañu sunuy nijaay lañu sunu lépp lañu di waxtaan ak ñun ñu nit ñu xam li ñu doon ci ñun moo tax tey émission euh, Roffo bi euh, ma consacré ko entre Ibo Ndiaye Niokhobaye ak Hippo Ngary kon drapeau bi le 30 la samedi. ci stade municipal bu Yoff diggante euh, Tafa Gàddaay ak général bu Grand Yoff mbokk yi comme ni ma ko waxee euh, na ñëpp ñëw maa aussi sa nekkoon ci réalisation bi dem ba euh, ci li nga xam ne mooy caméra bi ànd ak El Hadji Djibilaay ci montage bi ala Alassane Alou ci montage bi ak li nga xam ne mooy jàngatu Cheikh Thierno Ndiaye ci làmb ji nga xam ne deuxième journée bi kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous talaata jii di ñëw ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf.